ba dégg nañ sax ay ñagas-ñagas xat-xat yoo xam ne indiwaat na ko ci biir njaboot gi. yooyu yëpp nan ngeen koy mën a gérer. Mm-hmm. waaw politique moom li ma la mën a wax loolu pour jeune yi laa koy wax mooy képp koo xam ne yow amuloo ngëm-ngëm soxlawul nga di ci dugg. parce que boo ci duggee du fo du affaire fo. Mm. parce que lu jëm ci doomu aadama la c'est-à-dire c'est le destin de l'humain donc da am ngëm-ngëm. boo amee gëm-gëm nag euh, ben ñi nga àndal dañuy dem ba nangul la. Hmm. ba nangul la xaw ma foo déggee lu ba affaire borom kër gi xaritu Macky Sall. Hmm. en parenthèse Macky Sall moom ma ko présenté. <laughs> information information ñëw na. <laughs> dafa far tamit bu ñu yàqal. ak mu développé la baax na. foofu laa yem <laughs> su may doom ngeen bu ngeen wuti seen problème bu baax ay yéen doy leen waar. xaritu Macky Sall la yow ak bon Macky sa xarit la woon mais léegi opposant ngeen noo gérer loolu yëpp tamit. non bi gën a métti kay mooy sama yaay sama yaay dégg ngeen jëloon ngeen ma fii dëkk yi. mais moom moom loolu moo doon sama problème ak moom <laughs> ba pare xam nga lu mu wax. léegi Sonko ne ko man sama maam nga comme sama maam nga léegi sama jabar nga mhm. mais ku nekk sa jëkkër fi mu nekk la nekk mu ni Sonko de euh, mënuma bàyyi Macky sama xarit mhm. <laughs> Sonko ne ko mais man sëy bi nag noo koy def léegi man bu ma ñëwee màggal <laughs> dama lay jox ultimatum mu ne ko léegi dama leen di jubale <laughs> pour te dire mbiri mag de alors bi sama yaay gaañoo opposition bi ñëw pouvoir bi ñëw man ne moom de xanaa lii la gis gisu yàlla boole ko tam ak Ousmane mhm. parce que bi mu ñëwee oto mairie bi ñu demoon jëli pour mu jël ko yóbbu koor bi oto bi siisu hmm. demul oto hmm. Sonko moo ko yóbbu ci sama hmm. ceen waaw yàlla muy beneen booleete day saan mais lan moo waral seen politique mu tàng